mbokki jullit yi gannaaw ba nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante dañu koy dendale ak xew-xewub jamono ku nekk ci réew mi walla mu nekk feneen te bokk ci réew mi umpale wut ne ñi ngi dëkkmal ak tànn tànn nag yàlla moo ko mooñaale ak suñuy jëmm ak suñu baax moom moomu subhanahu wa taala day faral di tànn ndax moo wax ci alquran ne yaa muhammad sa boroom moo bind lépp li nga gis ak li nga gisagut li nga xam ak li nga xamagut ci coobareem rekk nag amul lenn lu ko géttan ba tax mënu ko ñàkk def ci coobareem lay dox coobareem jooju muy dox nag ci la ko soobe muy tànn ci biir mbindeefam yi bu ñu ko settantalee danañ ci gis waxdaaniya gim wéetoo moom kepp gim jagoo doon kenn ndax nit ñi bari nañ lool di ñu weex ak ñu ñuul ak ñu ne ci diggante bi waaye wéet gu suñu boroom wéet di kenn da caa feeñ fés ca li nit ñi nuroo nuroo ak li ñu tolloo tolloo kenn nuroowut ak moroomam loolu ci tànnam la bokk su aw nit nekkee ci barab lu coow la bari bari ña nga ca xam ku ca ree sax nga xàmmee tànn suñu borom la waaye ci biir jëmmi nit ki it tànnaat na ca ay melokaan yoo xam ne nit ki ci boppam mën na koo seetlu ci jëmmam xam ne ay waaraamam am na ko wuute loolu tànn suñu borom waaye moom gi moom lépp it ak xereñ gi mu xereñ lépp xam lépp ak kattanam it daf ciy feeñ kon boog bu aw nit jógee bëgg a tànn tànn lu jafe la yàlla rek moo ko jagoo jafe-jafe bi ci nekk nag saa su nekk njuumte mën na cee am bala maa agsi ci xaw ga yaatal tuuti ñu ndokkeel suñu mbokkum jullit moo xam ne jëfam jë daa ñëw ci jamono juñ ko soxlaa lool moo ne dëkkut ci réew mi de waaye réew yi ñu dandal la dëkk nga xam ne ba démb dee démb dawuñ ñu xàmmee ba fii mu ne nii sax léeg-léeg nga gis ku solu di romb lay dem nga defee ni diw la waaye su waxee nga xam ne lu diw ca col ma ca melokaan wa ak defin wa tanu suñu borom feeñaat ca moom moomu nag imaam la tudd Muhammad Dikko Muhammad Dikko moom li mu def ba tax ñu di ko waxtaane ci barabi suñu borom yi dafa firi bayitu sëñ bu mag bi mu bindoon bu yàgg bokk yi kooku analum def daa amoon aw xew woo xam ne ci ay bis bii dong la bii ñu génn nguur jël alal ju takku def ko ci ab sikaare am na sax lim buñ tudd lim boo xam ne ku xam réew moomu na mel nga xam ne daanaka su réewut ak ñun kàttan ku ñu ko jox nga xool xoolaat ne baax na jël leen loola lu mat a waxtaane la li siiw daal jërut may tudd lim ba waaye mën na dara dañ ko ko indil mu ne lu lu tax ñu ne ko nguur moo la ko jàppalee ci xew yi ngay waajal mu ne xew bi de waaj naa ko ba noppi dem leen seet ñi ko gën a yittewoo ngeen jox leen ko kooku day kuréel bu mag ñu koy tuddee al majlisul ala li shuun al islamiya la jiite xawma ñu ko tànn waaye mën nañoo tànn ñoom xawma ñu ko tànn waaye ñu mën a tànn nga noonee jamono ji ñu toll ku ñu jox lim bu toll noonu nga ne nga xool diggante sa diggante ak sa borom xam ne man nga waaj nga ba jekk am na ñeneen ñoo xam ne ñoom soxla nañ ko nga ne dana yit ko ñooñee koo koy jàngal na ñëpp lu Sëñ Tuubaa bindoon Sëñ Tuubaa daa bindoon ne katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abid al maai wa tiini li féeg maa ngi noyyi di xàmmee sama tur sama loxo lii moom du ma ko tàllal kenn di ko ñaan lenn waxantumaak nag koo xam ne day falu di folliku te léeg-léeg mu dem ba jàpp ne falu na te du folliku mukk te moo ne moog ñun ñoo bokk cosaan abidil ma i watti ni dong lañ kooke yàlla na ko yàlla fay ñu mën a tànn nga noone bokk yi nag tànn kon am na jafe-jafe am na jafe-jafe ñii ñëw naan tànn leen ñu ñoom la ñuy fas ci seen biir ba tax ñu bëgg ñu tànn leen ñoo ko xam waaye ña leen di tànn ñoom am nañ jafe-jafe bu rëy ci kan lañ ciy tànn ci ñoom kee daal moom xawma ñu ko tànn waaye tànn ñu mën a tànn lañ moom ñu rafetu tànn lañ ndax su demee suñ demee ba ca gris ci guy moo ko yàlla képp ak alal ci biirub néeg mu nangu ko delloo te yàlla tax te xam la tax ñu tànn ko moo tax ci tànn gi suñu borom di tànn malaayika yi malaayikaam yi nga xam ne ci waawam la ñuy xëy suba ak ngoon am na ci ñum tànn ñu gën koo jege waaye ci biir nit ñi tànnaat na ci ñoo xam ne ñoom la yebal ci ñun rawante nañ ay daraja waaye téewul kenn ku nekk ak tànn moo ko ci boole ci biir ñooñu it mu tànnaat ci ñoo xam ne seeni tur feeñ na ci alxuraan ñii ne ñaar fukk ak juróom la ñii ne juróom benn ñii ne ñaar fukk ak ñeent ñooña mu tànnaat ca juróom ñoo xam ne ñoo ëpp daraja ñooña fuuf tànnaat ci seen juróom ñooña kenn koo xam ne moom du seen moroom du seen màppandoo kon loolu li muy tegtale mooy xam-xam bi ak xerañ gi gannaaw bu coobare ak kàttan jiitoo suñ la waxee kenn ku ci nekk kam doon danga xam ne ku mën a tànn nga noonu waaye ñam tànnoon it amu ca kenn koo xam ne lañ ko tànne yàq na ko da ko defar ci biir coobare suñu borom googu ak tànn gi su weesoo doomu aadama yi am na ci biir jur gi ñoo xam ne biir biir jur gi yoo xam ne yii léeg-léeg nga indil leen ay xont yu wuute waaye dañ cay tànn ñoom ci biir jëmmi nit ki ci boppam yi muy lekk ak di ko naan am na ci yoo xam ne moom da koy bëgg waaye yaramam moo ko moo ko tànnut yaramam moo tànnul loola su koy jëfandikoo rek day tàmbalee gis lam koy wàññ am na sax kilifa gu ñuy wax ne moo ne woon looy lekk di ko jëfandikoo te sa yaram soxlawu ko dee lekk dee ko jëfandikoo tey faju rek am nañ ñu ne nag loola mënut a doon ay waxam ndax di jëfandikoo di faju moom googu jot xanaa kenn waru koo am waaye lu yaram bi tànnul daal tànnu ko lu ko sa gémmiñ soxla soxla kon tànn suñu borom daf ko lawal ci mbooleem mbindeefam yi moo tax tànn jafe ñii wër naan tànn leen ñu nag li ñuy def li ñuy def tudde ko campagne électorale mooy dagaan rek dagaan dagaan ci wolof mooy ku bëgg soxna fi barab su demee fii ba ba muy am desut xam jikkoom ndax buy ñëw waajtaay wa ca war ci am col da koy waaj la ca war am col bu ñu ko waxee tudd nañ mbaxana tudd ay dal ci jamono jii sax téléphone bi muy ŋàbb daf ko ciy bàyyiwaale xel ba su demee daal mu ñu xam ne kii moom bokkut ak ña daa ñëw su demee fa muy jëkk tàmbalee bu xoolee ba xam ne kër gi ñu bëgg ay gone lañ gone yi lay jëkkante def di jël lu gone taq-taq suñ ko nee da lay taqal mu ne ah baax na de ndax bàyyi naa fa gone da koy taf ci boppam ba ñeme ko ñi bëgg ko ne ñeme ko lool su fekkee kër gu yées këram la lool bu amul fu mu toog it jaral na ko toog ci suuf fa mu leen fekk ñu ne ko di sa sa yére yi mu ne ah baax na de bu jógee daldi faxasu te loolu wolof atte woon na ko bu yàgg nee na ganag fii baax na saa bu fa jógee fóotlu ji ndax bëgg faa toog amul yéene ci toog fa day dagaan rek su ko defee muy wax lu ñor di wax lu ñorul di nuyu ji mag ña di leen mosal dara sax ba mag ñëpp commencé naan waay waay gi gone ka yaru waay ak amub yar te araam yàlla xam na ni melut noona day dagaan rek ña gën a naqari deret ci kër ga ci aw jigéen ak i waxambaane ak i njegemaar ñooñu lay jëkk a fexe ba am leen ndax wóor na ko ni su leen amee rek jàmm rek a fi xew ñi des ma mën na leen a moom moom waaye bu jógee ci biir ëtt ba ñëw fekk bant ba gaaye toog da leen def ay moroom ba ñeme ko suy demit mën na leen a bàyyee luñ ataaya doonte duñ naan kati ataaya waaye ataaya la koy tudd mën naa fexe sax ba mu doon bañ xam ñoom ataaya naan ataaya lan la ataaya ataaya bañ na ataaya lu mu benn bis mu indi ko fa def ko fa duñ ko nangoo bàyyi waaye nag bis bu jëlee ba bis bi dellu si li muy jëkk a def mooy ña dëkk ca koñ ba te daa fa ñëw wala mu daan leen nuy ji lay jëkk a fakk kum tasel boo ne ko diw naam nangam mu ne yawee kanaati mu ne ko mag diwa bokk koñ de mu ne ah waaw koy marxaba ba bañ fàtte ñëpp dagaan dagaanu ko ren gi nag am na ñu ci des yal na leen yàlla yërëm doonte dogalu suñu borom la suñu borom dogaloon na bu yàgg ne dagaan su ëmmagul rek duñ mën a faatu ñoom muy campagne électorale feeg ëmmagul ci at mii ñoom duñ ca faatu ñoom duñ faatu dara mënu leen a faat ci diggante bi dogal baa fa jaar yàlla bu mu amaat nag mu mel ne ñooñu di dagaan laata ñuy sañ a dagaan am na fuñ jaar ñu tudde ko bàyyale kenn ku nekk day am kuñ la bàyyale su nangoo nga soog a sañ a dagaan loolu nag daa misaal ëllëg àllaaxira ndax bokk yi fii ñii dagaan bu dee ci réew mi la niwuñ kenn soo demut tànn kenn ci ñoom dañ lay teg ay daan ni ko yeneen réew yi defe maanaam wate fi daal nokkut lu mënta ñàkk dalay soob rek am na réew yooyu nag sañ bañ la faw nga dem tànn ñii tànn ni ko réew mi tëralee gun kenn suñu cee laaj lu ëpp yaari yoon wenn yoon lay laaj ñu sunguli ko sunguli mooy sefal nañ ko mu dem ba ci digg ñu dolli ko sefalaat ndax ni muy lekk rafet na waaye bu jeexalee day day war a jox keneen muy yaari yoon képp kenn waru ko fee weesu muy ñetti xeet ñetti xaaj kenn ki mas naa yor bëgg ñu dolliwaat ko ñu sunguli ko am na koo xam ne mas naa yor moom ba mu jógee ci ay loxoom yàgg na mu bëgg caa jotaat kii moom daa bëgg ko dolli kii daa bëgg ko joxaat moom mu yor yor gu yees kii nag moom musta yor ñett ñoo ngi daa mel ne bu fi amee ñeenteel it xawma ko waaye comme ci man doon daal bu ñu la joxee doo weesu suñu weesu yaari yoon am na nag ab yatteel maanaam li ñuy def nii di tànn kenn ci ñi koy wut mooy bàyyale gi ñu dikkoon a def rek waaye nag bokk yi bu ñu demee tuuti ëllëg ñiy wax ne jëmul fenn fii lay am ëllëg moom faw nit tànn benn kuréel bu muy bokk moo tax tànn jafe na xam ne ki muy tànn fii ëllëg ki si birit lii mu ko joxoon lu mu ci àtte moom moom ñoo koy bokk ndax ñi ko jàppandal mu mën a yor ci la bokk ëllëg nag mooy troisième tour bi fii deuxième tour rek lay am premier tour deuxième tour premier tour bu kenn mënul sa moroom ñu jàll deuxième kenn jàll kenn mën a jàll moom faaw ñu ci des dañuy xaar waaye am na troisième tour boo xam ne rek mooy farfarloo ba dëgg dëgg dëgg kenn ku nekk moom dana am fa ko yàlla féetale suñ demee ci alxuraan danañ ci fekk saar woo xam ne sax loolu la xaw a firi suratul jaathiya suñ demee ba ca kanam danañ fa gis walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu saatu yawma idin yaxsaru almubtiluun bis dana ñëw moomeelu suñu borom képp mooy wér su boobaa lu waay waxoon fii ne danaa ko def ba tax ñu tànn la ca danañ ko toppante ak yow ku ne woon kaay la ñu jox diwit ndax moo la neex kese wala moom nga faral kese su boobaa it moomeel suñu borom kese moo fay feeñ su boobaa nag ci ñaar ñooñu ki fexe woon ba jox danañ ko laaj ba xam noo yore woon benn mu ne su fa ñàkk bokk ci ñaari kuréel yi ma wax ne miñ ci kanam suñu borom teg ca ne ku fa amut lu mu lay perte na yàlla nu ci yàlla musal ñu ne ko bis ba nu muy defee mu ne nu muy demee mu ne tara kulla ummatin jaasiyatan kullu ummatin tudaa ila kitaabiha su boobaa xeet wu nekk dees na leen woo ñu ñëw ne map ci penc bi bu ñuy woo woote ana nu ñuy woote ndax dañuy woo ay tur ay code lañuy wootante ndax dañuy yëkkati ab té ab ab téere rek ne ku moom bii ka ko moom daal ne mën a ñëw taxaw ñu ne ko waxam moom lay wax ne tuddaa ila kitaabiha al yawma tujzawna ma kuntum taamaluun bu ko waajee bëgg a jël nag yàlla ne ko ah téere bi nag na mbooloo mépp seere ne li li ci waajee jàng lépp dëgg la ndax amut lu mu mës a wax ne danaa ko def te binduñu ko ci amut lu mu mës a wax ne du ma ko def te binduñu ko ci hada kitaabuna yantiqu aleykum bil xaq inna kunna nastansixu ma kuntum taamaluun ci àdduna ba ngeen fa nekkee lu waay mës a wax rek bind nañ ko fi su boobaa nag kenn ku nekk dana xam ci ban kuréel lay bokk moom moo tax tànn jafe fa ama alladina amanu wa amilu lsalihati fa yudxiluhum rabbuhum fi raxmatih dalika huwa alfawz almubin ñi nga xam ne luñ mës a wax def ko gannaaw buñ fasee pas-pas bu dëgër su boobaa ñoom bokk nañ ci kuréel bi nga xam ne muy parti bi nga xam ne sañ nañoo yaakaar yaakaar a dugg ci yërmande suñu boroom suñu boroom nag ne loola mooy alfawz almubin buñ demee ci alxuraan danañ ci fekk ñetti xeeti ndam ndam wala boog gañaa alfawzul mubin ak alfawzul kabir ak alfawzul azim fawzul mubin moo kooku mu jëfandikoo mooy lan koo xam ne lam façon moom la war a fas te feeñoon na ci ay cëram moo tax ma ne ñi ko ñiy wër moom ñoo xam lañuy fas waaye su ëllëgee yàlla dana ko weer dana ko weer mu ne lañ donte nit ñi mën nañ koo àtt ci la ma waxoon defu ko waaye ëllëg lay raw at ña ca àndoon ak moom ñépp al fawzul mubin mooy lan mooy ku dugg ci yërmande suñu borom rek mucc na ci sawara rek yàlla nag war a xool mbiram ba xam lu muy def ak moom moom la alquran di wax ne qul inni axaafu in asaytu rabbi adaba yawmin azimin man yusraf anhu yawma idin faqad rahimahu wa dalika alfawzu almubin képp koo xam ne daal yëg na ci jëmmam ji yërmande suñu borom ju tàmbalee dugg moom mucc na ci sawara moom ndax yërmande suñu borom mënut a ànd ak dem sawara mooy fawzul mubin am na lu ko leer ci du dem sawara moom waaye ana luy alfawzul kabir alfawzul mubin suñu borom tudd fa àjjana tudd fa àjjana tudd gudd àjjana waaye alfawzul kabir mooy lan inna alladina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min taxtiha al anhaaru dalika al fawzu al kabir ñi am pas-pas ba koy am te jëfe ko ci seeni cër te làmmiñ bokk ci ba nit ñi xam ko dund kook moom ñoom day am nañ aljanna te am giñ xam am aljanna te yàlla wax ko ñépp dégg ko dalika al fawzu al kabir fawzu al kabir waaye nag tuddagut ne kooku dem aljanna dana fa sax ba faw waaye alfawzul azim nag mooy sax aljanna ba faw te ku fa dugg ku ko yàlla defal dootu fa génn yàlla nañu ko yàlla defal loolu la koy maye nag mooy am ngërëmandey suñu borom ngërëmal suñu borom moom lay wax ne tilka xududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dalika alfawzu alazim fawz tudd na fi aljanna tudd na fi it béel ca àjjana duutu ca génn yàlla na ci yàlla boole mooy fi mu waxe ne fa muy joxe téere ya naan haza kitaabuna ak yow ma itam ci ko jiitu su gaa yi naan ah waa li nu mën a amee kee moom ndekete am na fawzul mubin kee am na fawzun kabir kee am fawzun azim mu ne hada yowma yanfau saadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan lu tax radiallahu anhum wa radu an dalika alfawzu al azim maanaam ki mu mujj wax alfawzu al azim dem na aljanna te duutu ko génn boole koog am ngërëmal suñu boroom bokk yi nag kuréel boobu moo mat a fexe bokk kuréel bi nga xam ne ba nga cay bokk kala ca tax a bokk lu mu wax dana ko def lu jafe la nag moo tax tànn jafe de kooku day mel ne day parrainé kooku rek fii ci li wate yi parrainage rek la ñoom sax firndeel nañ ko ci bi wate bi jóg naan ku amul nangam dañuy xam ne waa réew mi wóoluwuñ la doo mën a dem doo ci mën a bokk doo mën a bokk ña dagaan waaye nag suñ dagaanee ba noppi bisub wate ba dëgg nag mooy yawmal qiyaama kuréel bu njëkk bii mooy ñi nga xam ne am nañ ndam lu leer nañ fawzun mubin ñenn ñi am nañ ndam lu mag mooy dañuy dem aljanna ñenn ñi dañuy am ndam lu mag a mag te mooy dem aljanna te dootoo ko génn te saa su nekk ngay gis luy wane ne yow mi am nga ngërëmal suñu borom yàlla nañu ko yàlla defal moo tax kuréelub ñaareel bi day am moom itam foofu lay fese wa amma alladina kafaru kufr bokkut ak doonub yéefar rek mooy di wax te li muy wax gëmu ca dara li muy dige gëmu ca dara lim fas dara baaxu ca loolu moom waxuma la moom ci boppam waaye ku wax ba dugal caw nit ñu ànd ak moom it fu mu dugg nga dugg fa wa amma alladina kafaru afalam takun ayati tutla alaykum fastakbartum bu ñee di lijjantiku di dem ñii nga jogg rek tiit lool mu ne lu ngeen di tiit nii yéen lu ngeen di xalaat ñu ne ah fee gaa yi jëm lañ bëgg a dem de ñu ne ah fee moom nag dem fa du noonu di fee fañ waroon jàpp ba dem fa weesu na xanaa ba ñuy wax ñuy dégg xanaa yéen bokku leen ci woon xanaa daaw leen dégg ak fajar wala guddi alxuraan di wax di wax ak yéen wala nit ñi naan leen yàlla nee na ñu ne ah wax dëgg yàlla dégg nañ ko ba tàyyi de ba mu koy suñu nopp waaye bare ga taxoon na daanaka jiteelutuñu woon falam takun ayati tutla alaykum fastakbartum li feeg mi ngi wax li ngeen bëgg rek ngeen di déglu waaye su tàmbalee metti rek ñu ne ñun weesu nañ fii muy waxe kii dafa tardé amut positif wala gëmut sëñ bi ñun dañuy gëm sëñ bi rek yam ci moom yaakaar ko képp yam ca yàpp képp yam ca ñëpp yaakaar sëñ bi gëm ko waaye du tee ku xëy xëy marché lu teewul ñu bàyyi sëñ bi seen bopp rek ba ñu xëy fenn te di ko yaakaar wa ida qila inna wa'da allahi haqqun wa saa'atu la rayba fiha buñ ne leen tey ngeen di wax dige lu ngeen man tey wax dëgg ñu ne lii fii rek la yam ku ne li fi yii fi fii rek la yam weddi na benn ponk ci benn ponk gëm yàlla yi muy bis penc day ñëw gëm ne bis penc day ñëw ci ponk yi gëm yàlla yi la bokk kuñ na nag lii fi dong la yam fexe nañ ba nga gëm ba nga weddi benn ponk ci ponk yi nga xam ne ci gëm yàlla la bokk bu ñu leen yàlla jigée na nangam ëllëg ëllëg ëllëg ñu ne ah lii moom fi dong la yam loo ci mënta am rek ñàkk nga ko xultum ma nadri ma saa loolu sax mooy lan ak ku fa mas a dem yow danga fa mas a dem kan ma fa mas a dem ñëw nettali ko in nazunnu illa zannan ah yàgg nañ ko dégg ci suñu maam ba léegi de mën naa am xay na jombul boo demee boo wattuwul boo sàggantul zanna wa axwatuha waaye li wér te wóor mooy wama nahnu bi mustayqinin ku xors ku for ku for ku ku xar seeni xol moom la ca nekk dëgg-dëgg mooy gëmuñu ko waaye dañuy bëgg kenn du ko gëm itam su ko defee nag wa bada lahum sayiatu ma amilu wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastahzi'uun su boobaa nag ñi ci maandu woon ñu leen daan traité naan ñi dañoo yewwul wala maandu gi du maandu dara dañuy dóor nit ñi rek du dëgg ci ñoom nee na su boobaa nag ñu indil leen seen commentaire yaag lépp tegal leen wa xaqa bihim ma kaanu bi yastahzi'uun yastahzi'uun ñoom duñ dem di ko jëlee waaye loola may wadd na leen tàpp ni acier boo dugal ci suuf si ni muy ni ko weñ ji di wër di ni ko weñ di di wutee tàpp ca kawam su ko defee nag ñu dar bopp ñenn ñi ñenn ñi bu ñu meree dañuy xus seen kawar di sànni ñoo leen jëru ko de xiidal yawm nansaakum kama nasitum liqaa yawmikum hada wama lakum min naadirin min naasirin dalikum bi annakum ittaxastum ayati llahi huzua wa garratkum alxayatu dunia fal yawma la yuxrajuuna minha wala hum yustatabuun tey moom su ma yëgoon amatut moo tax bokk yi ñi tànn doonte waru gar la ku dëkk ci réew mi doonte manantuwuñ kenn ne danga ko def wala nangam ak nangam teewul nag mu mat a setantal ndax boo ko tànnee ne la wóor ne lu mu àttee canga bokk yi xëyoon nañ fi xëy ne ku rey nañ ko rey yàlla da cee juum am na ku ko proposé bañ watee ko ba amatul ci réew mi ndax wala ayaasu billah njuumtal suñu borom dajaa fay nee nañ ndax loolu jamono weesu na ko ku sàcc bu tollee nangam nañ dagg ay ci ay yoxoom loo xam ne du mën a sàcc te du ko rey ñu ne loolu moom jamono weesu na ko droit de l'homme weesu na ko dindi ko sànni ar rijalu qawwamuna ala nisa góor mooy jiitu jigéen topp ca di ko taxaw ñu ne da cee juum ñoo war a yam ñoo war a yam kepp ya cay topp topp ca ya cay topp topp ca da ngeen a defee ne ña tànnoon bokkuñ caa ca lañ bokk moo tax bokk yi tànn mata seet ci jamonoom nag lañ toll amul kenn ku ñuy joxoñ naan nañ ko wëri tànn ko kenn ku nekk daal na ko wóor ne dana laloo ku ñu tëral ci bàmmeel sax du laloo ndey joram xanaa përëgam mbaggam mooy féete suuf rek ñu nga ko naayal boppam suuf kese mu war a tontu laaj yu bari tàmbali faa xamee ba xam mbiram fi muy jëm ëllëg moo tax mbañ gàcce googu ñu wax isoloir isoloir bokkut ak mbañ gàcce mbañ gàcce ci buntu kër lañ ko daa def bañ ku karfati ab tib bañ ku karfati ab tib maanaam jaar seen mbedd dama di seen leen ñuy sax wala boog bu gan ñëwee te doon gan guñ yar mu taxaw fa ne asalaamaaleykum ñu defarwaat waaye isoloir mooy fi kuy wate di dugg tànn ca këyit ya xob ya wenn xët wenn wenn xob def ko ci ambulong yekee des mu sànni leen na ko wóor ne boobu mu sànni mu tànn def ko ci ambulong bi mooy jox doole waa ji bu ëllëgee mooy tax bu ko neexee lu ko neex daganal lu ko neex araamal su boobaa nag ca ña ko dox doole ca ngay bokk moo tax mu mat a tànn waaye na ñëpp dem nag tànni buñ ne bu dee loolu la moom duma far dem waaye kuy dem daal na bàyyi xel loolu moom faw ñëpp ñu yaakaar ci kenn ndax day mel ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy wax sori wuñ daal kenn ku nekk fu demee fi barab la fa xew rek lay wax foo xam ne ni ñun lañ ñun la fa fekk ñun sàmm si ci nag ak xar rek lay waxtaan ak bëy ak ganaar ah gertu gàll baali nagge mbeewa rek dana fexe ba xam seen tur di ñu ko wax ñu ne ah kii kat xam nañu su demee foo xam ne ay nappkat a fa nekk mu limal leen xeeti jën yi am ak waxtu jën wu nekk waxtoo mi am ak kañ lay nen ak kañ lay faral su demee foo xam ne mbay a fa nekk it mu wan leen ne maa leen gën a xam cooroon maa leen gën a xam noor maa leen gën a xam lool li maa leen gën a xam nawet waaye xeeti gàncax gi da ciy dugg bëgg leen cee jommal am na fi premier ministre bu mosoon di wax ci assemblée ndax dañ ko ne réew mi xiif dafay am xiif am am na fi kenn lekkatut mu bëgg a waa mu bëgg leen a waar leen ci àll bi laa jóge naan leen même man mbuum caxat dama koy lekk mbuum caxat mbuumum caxat la ñuy wax man même même sax man mbuum caxat mbuum caxat dama koy lekk dafa neex kon boog mu ngi noonu yàlla nañ sa ak jàmm mu xew ci jàmm te li ci jot a xew gu si néew yam fa te gannaaw mit jàmm topp que yàlla di jox moom noppi na cax ñun ñooy làmbutu rek ak naan xay na ak demle zanna wa axawatuha xasibtu xiltu kese waaye yàlla noppi na ca bu yàgg te kooko sax mën naa bañ a xam moom am na ñooñ buñ ci gisee dañuy jooy ndax da leen di bett am na ñoo xam ne dañuy barde duñ xam fu ñu war a tàmbalee atte nañu jël maafe sax def ci suukar bëgg mu gën a neex te fekk maafe ak suukar kenn du leen boole yàlla na yàlla defal dégg bi topp te musul ñu cheytaan yeek pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin